asalaamaaleykum waa Sen TV télé askan bi man maa ngi tudd Abdoulaye Gomis dëkk Thiès waaw di naqarul am démb stade Maniang Soumaré mooy ni ñu ko yàqee noonu stade boo xam ne ñoo ngi ko defar def si ay millions inauguré guñ ko sax ay ndaw ñu yàq ko ndax ay problème mu affaire ay nawetaan bu fekkee ni ñum ndaw ñi ñun ñu ngi yëf Sénégal lay jàkk heure bu ñu jógee ñëw gouvernement gouvernement gouvernement daf effort defaruñu stade mu mel nii inauguré googu inauguré googu sax ñu yàq ko. jërëjëf jëfati mbokk yi Talla Diakhaté xel ko moo nekk ci kàddu gi gis naa safar bu réew ba tey waaye bu mel nii moom maa ngi koy soog gis wax dëgg yàlla. maa xam ne réew mi sëñ bi ni mu bëree ay accident fan yi li fi faatu ci ay bakkan ci tëli bi yow nga mën a yor sa boor bu maafe teg ko sa wet di dawal di lekk sa maafe di fo ak oto bi mu yor ni mu amee poids nga xam ne oto bi mu daj sa ko nga am problème kii moom ko war a ba gis ko teg ko ci yoon kii ku réew président Bougane Gueye nga xam ne convoqué nañ ko police pour lan ay affiche de sensibilisation yu mu def pour jeunesse bi ñu doon bindu ci ñu bëgg ko jaay doole loolu opposition bi yëpp mënoon nañ taxaw te loolu warul opposition bi tey ñun ñëpp benn na war a nekk di un homme digne di vrai aussi opposant nga xam ni jeunesse bi aussi euh, jox nañ ko loxo kon noo ko waroon na ko taxaw moo tax opposition bii ñu ñu ñu ñuy tënk nanu nekk benn dara bañ leen diviser. bu ko defee ñu dem ci élection locale yi gagné ko dem élection législative gagné ko bu ko defee ñu dem présidentielle ku ne sàmm sa nënd ñu xool ku Sénégalais yi di tànn ndax Macky Sall yàq na Sénégal Sénégal metti na suukar cher na dëwlin cher na ceeb cher na inondation bi bare na sàcc gi bare na parce que cinq cent onze milliards fu ñu ko def ci inondation foofu ndox waratu fa taa. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kii tam dong la bu bëgg àddu rek maanaam ci li xew ne ci Guinée maa ngi dégg ñu naan union européenne rek euh, xam nga union ko waaye dinaa bëgg euh, doomi euh, maanaam yi xam ne doomu africain yi xam ne union africain yi duñ su gëm ñu ngi taalal seen loxo union européenne lu union rafet lu duñ ko rafetlu te union afrique européenne yi nga ñuy wax naan rafetluñ loolu ñoom lañ ñee doon dund duñ ko xalaatuñ ko ñemee dundoo seen i doom waaw yëfu dictature troisième mandat jël xaalis sa sa doom say rak say jarbaa sax doon ay millionnaire wala milliardaire ñoom duñ ko def kon buñ nekkee fii naan rafetluwuñ ko lañ fa daan am xa dañoo xalaat ne mën nañ koo ñàkk ndax réew mu xam ne président bu am fula dugg na ci euh, jël réew mu Afrique boo xam ne président bu am fula jiite na ko duñ nangu ñu jël seen i registre di ko di ko utiliser loolu tax ñu naan naqarlu nañ ko waaw loolu léegi coup d'état yeewi ay nit la xoolal dëkk bépp a génn di sant yàlla ñu naan rafetlu nañ rafetlu wuñ ko euh, rafetlu wuñ ko loolu ay wax yu ay wax ay wax waxu naafeq la ñuy wax noonu. asalaamaaleykum waa Sen TV ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen jaajëfal kenn ku nekk xam ne ne li nga xam ne nii moo xew Guinée ak gënalut kenn képp kuy doomu Afrique xam nga ne coup kenn bëgg ko ci sam réew. waaye ñi nga xam ne ñoo jiitee réew yi Afrique yi nañu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne nii moom la ñuy def mënuñu heure bu ñu bëggee falu ay kayit fal leen te bu ñu bëggee follee ko ay fitar di leen folli nañu xoolaat bu baax la ñuy def kaay ma yor la sam réew liggéeyal la ko jërul nag yenn yi wax dëgg yàlla troisième mandat moom dañu ko fiy tere ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mën ngeen def euh, ni ñoom envoyé seen vidéo joxe seenu ko xalaat ci numéro whatsapp bu groupe D-Media Hadj Mansour sa xalaat ci xalaat yi fi jot jaar. ñaar rek laa xalaat muy borom ceeb bi. moom hmm. boolu euh, domadaa bi. moom domadaa la xaw ma euh, bu toogoon ci otom di añ kenn du ko wax dara. Hmm. mais ci kaw tali bi di dawal indiscipline boobu foog naa ne kilifa it ñu jël ay matuwaay parce que fi nekk nii tali bi indiscipline bi li muy yóbbu ci ay bakken dafa doy sëkk. comme kii bu wanee boppam nii. c'est-à-dire que mooy xamuñu euh, sérieux bi ñu war a sérieux mm-hmm. dëgg dëgg réewante gi daal kenn xamul noo koy noo koy noo koy noo koy mm-hmm. natte quoi mm-hmm. bi ci des mooy fii Idrissa Diema nekkoon sànq ci plan Jaxaay plan Jaxaay dañ ko waajaloon ay nit ñoo xam ni ay victimes lañu ci wàllu inondation bi ñu leen joxee ba noppi ñu gis ni xëy na des na des na yoo xam ne kenn moom ko am ñoo xam ne inondation tax ñu daw dem làq leen fa ñooñu bu ñu recensé ba ni kenn moomul foofu état bi dig leen pour jox leen ko euh, lu mu def du dul bañ leen koo jox mooy li indi xol yu tàng yi ci Afrique. Mm. injustice googu dañ ko xeex. déjà ñii boo xoolee seen situation xam nga ni baaxul. Mm. déjà fi ñu dëkk dong baaxul. nga yokkaat ci bëgg leen a génnewaat te da nga leen a génne woon fi ñu dëkkoon ndax inondation parce que rek nee nañu kenn moomu ko. Mm. am ay sambi ay ay ay bandi ay samba booy ñoo xam ne lu lang la ñuy bañ. commencé ñëw di ko recenser di ko jaay. dem di leen xuppatal di wuti ay ay kayitu huissier. mais huissier bi balaa moo wax ni kii dafa nekk sama kër huissier bi signé loolu. vraiment na xool ba xam ki koy signé loolu loolu moo moom kër gi notifié par un papier wala déet. bu dul loolu nañ bàyyi xolu askan wi ñuy xonqal. bu fekkonte woon ni état moo ko moom. wala kenn dañ ko waajal kenn ñu ni leen li ngeen bëgg dafa yomb génn leen. mais dañu ni dañu leen recensé ni leen fii kenn moom ko joxaguñ ko woon kenn attribué wuñ ko kenn. bu dee joxe day am ñoo ci njëkk yaay. ñoom ñoo njëkk yi ñooñu Sénégal yi te ñoom nee nañu noppi nañu mën nañoo jënd. Mhm. bu ñuy ñu fay may mhm. xongal xolu nit yi. Mhm. nañu bañ toog fi ñu toog ba créé état di leen wax lu leer. ay benn benn individu bu ñu ñëwee di leen xuuxal ci ay kayitu huissier ki ay nangam nangam nañu lànk opposé ba wax ji jóg siiw et ñu ngi interpellé état bu Sénégal. kenn du duma doom làq doom. Mhm. très bien c'est injuste. sëñ Saliou sa xalaat ci xalaat yi fi jot a waaw image bi Mansour doon wax léegi mooy kii toog tim bool dama daam ba pare ba nekk nekk si tali bi image bi man bi ma ko jotee ma ko jotee barki démb may laaj ndax dama daan dawal waaw <laughs> toog naa vraiment xool naa ko lu bëri di ko analyser quoi parce que pour man c' était vraiment surréaliste hmm. jàppoon na nit war na a toog hmm. ba sa boolu euh, hmm. ragal ne du am sanction xamul tax parce que nañ fa wane aussi benn apprenti taxaw arrêt nii ci digg tali bi génne awram ba pare di tuur ndox te pourtant loolu par la suite en dégg déggatuñ ci dara hmm. kooka non seulement respecté wul boppam respecté wul environnement bi mais respecté wul aussi clients yi nga xam ñoo nekk ci biir parce que nga def loolu ba pare bëgg taxaw dugaat ci biir da jàkkaarloog nit ñi hmm. loolu déjà c'est un problème moo tax nag li nga ci gis yëpp lu koy indi mooy chaque fois absence de sanction yu mel nii hmm. sanction da ca war a am ba sénégalais yépp xam ne kii sanctionné nañ ko durement parce que loolu bu ñu gisee sanction bi dina mën a servir d'exemple pour que keneen ku ko bëgg a def aussi su mhm. boobaa dinga nga réfléchir à deux fois avant nga koy def ma jeexal rek Mohamed ci mhm. affaire jaxaay mhm. gis nga jaxaay scandale la xamul tax ma ne scandale la gis nga ñi nga xamante ne ñoo war a nekk les véritables destinataires bañ koy defar ñu ci bëri duñu ay destinataires gis naa ñoo xamante ni dañu yore seen i kër étage feneen ba pare terewul jaxaay ci boppam dañ fa am lu mat ay benn ñaar ñetti kër ba pare jël ko di ko luwee alors que hmm. esprit jaxaay c'est pas esprit jaxaay mooy ñi nga xamante ne dañu néew doole ba pare nekkoon ci mbënd mi ñooñu lañ ko waroon jox hmm. mais Sénégal moom lépp lu am rek toujours ay njuñ njaaj am ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon dëkk foofu finalement ñoom ñooy dem ak moo kër yi mu noonu doy waar jërëjëf Serigne Saliou Gueye jërëjëf itam El Hadj yi cant na leen ci kóolute geeg tàmm geeg safoo gi ci Sen TV